tekk ko fa ñooñu lan nga leen di tonk. bay Malick. bay Malick. bay Malick waaw euh, Baye maa ngi lay gërëm euh, yow ak Alima ci kàddu yi ngeen euh, wax sànq. damay lëkkale lu ñu wax. Mhm. li nga leen laaj ak li nga ma laaj nen mhm. damay jox benn misaal. tey ñu ngi nekkoon siège u FRAPP. 10 heures. ñu ngi amoon conférence de presse ak ay doomu Bakel midi ñu ngi amoon réunion ak doomu Thiénaba une heure ñu ngi amoon réunion ak association mais pompiste ak graisseur yu liggéey ci station service yi quatorze heures ñu ngi amoon euh, réunion ak xëy na beneen groupe boo xam ne fàtte naa ko man bi may réunion ak beneen groupe ñeneen ci membre FRAPP yi ñu ngi doon réunion ak ndaw yu bàyyeekoo Mampatim muy kon ci benn fan def nañ ñeent wala juróomi réunion ak ay doomu senegal yu bàyyeekoo fu nekk te daanaka bés bu nekk noonu la dégg naa li nga wax Baye malik maa ngi baalu àq sénégalais yépp yi nga xam ne man tax naa ñu jooy maa ngi baalu àq sénégalais yi nga xam ne wax nañ ma ne biñ ma jàppee dañ doon woor ndax man pour ñu bàyyi ma maa ngi bàllu àq sénégalais yi nga xam ne am nañ ndaxar ndax man xam naa ne bëri na si ñoo xam ne bëgg nañ ma sopp nañ ma waaye li ma leen di wax Baye Malick mooy sopp sama askan moo tax may def yenn yi parce que bu fekkee da nga recevoir ñuy liggéey ci station service yi ñu naan la ñoom duñu ñu contrat moo xam station Total wala Shell wala feneen bu ñu bu ñu signé contrat duñ ci teg bët ñu naan la ay soixante mille ay cinquante mille ay soixante dix mille la ñuy fayee ko par mois ñu naan la yenn saay contrat yu ñuy signee sax ay contrat un mois la contrat deux mois contrat trois mois yu ñuy renouveler di ko renouveler ñu naan la station xawma Shell ko am na benn benn sénégalais bu am juróom benn fukki at ak ñeent pompiste la maanaam kon kooku kenn mësu ko daggal xaalis pour bu retraite jotee mu dem retraite mais loolu est-ce que mun na wéy ñu ñëw ne la na ba ñëw diis ñu seen jafe-jafe ñu ne ñoom dañoo am carrière mais carrière boobu li ñu xayma ne moo dugg mo euh, moom la jur ci xaalis uh-huh. ci diiru xawma juróom-ñetti at toll nañ ci cent soixante millions waaye li bi déclaré huit million la te fekk ne métier na ba manqué la na école manqué la na kaaraange manqué la na leneen ak leneen mais façon yooyu boo ko déggee luy pexe kuréel bi nga xam ne moom laa fàtte woon sànq mu ñëwaat sama xel muy trois cent quatre-vingt-six familles ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom benn njaboot yoo xam ne mbiru plan jaxaay bi nga doon dégg depuis mille 2005 ñu toj seen kër Géejawaay mbaa Pikine président Ablaye Wade di tabax ay kër ñoo ñu safe 16 ans jotuñu seen kër ay kër yu tas. ay sëy yu tas ay nit yu dof ñoo xam ne sax génn nañ àdduna ba léegi joxuñu leen seen kër loolu lu siy pexe loolu moo bari ci réew mi bay Malick. Guy qui est yooyu. Mhm. moo bari ci réew mi bay Malick te loolu ñu ngi koy dégg bés bu nekk luy pexe pexe bi mooy ah li mooy li lislaam santaane. kilifa bu dëng ah nga wax ko dëgg si rek teggin nga wax ko dëgg bu doyulee ah defe naa diine l'islam tamit moo ko wax boo gisee lu ñaaw boo gisee lu baaxul sa askan nga jëm ko dindi ci jëfin boo ko mënulee nga dindi ko ci waxin bu fekkee loolu diis na la nga naxarlu ko sa biir xol. kon looloo tax kii tu es un peu partout. man mm-hmm. nag tollu ma foo mm-hmm. xam ne. damay naxarlu noot bu ñuy noot sama askan ci sama biir xol toll ma foo xam ne damay naxarlu li ñuy noot sama askan ci gémmiñ dama toll foo xam ne boo waxee ba sonn ah li am doon wax mooy buur bu dul buur di jaamoo ñi nga xam ne nekkuñu jaam wala nekkatuñu ak ay jaam jàmmaarloog moom dafa war ndaxte bu fekkee ñun suñuy rongañ lañuy ñuy tibb pour ñoom ñu am seen bànneex. ñun ñuy daal di torox diggan di torox Baye Malick luy pexe. très bien <laughs> daañu ci daañu ci ñëwaat xam nañu pexe bi mooy wax ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk. Mm-hmm. suñu alal te ñu ay surga dong. te ñu ay surga dong wax leen ne lii du dëgg du yoon. wax leen ne Bakel askan bi toog juróomi fan ci diggu weeru koor ci jamono bu tàng 45 degré. Mm-hmm. ñu toog juróomi fan amuñu ndox du dëgg du yoon. wax leen ne Kolda mi nga xam ne am na xawma lu jege deux cent mille habitants amul en fait gynécologue du dëgg du yoon. Mhm. te Baye Malick mais nga xam ne bés bu nekk Sénégal am na jigéen yuy dee ndax dañoo ëmb nga jël région lëm amul gynécologue ndax lan. xaalis bu ñu waroon fayee gynécologue xaalis bu ñu waroon fayee ay jàngalekat xaalis bu ñu waroon fayee ay école ak yeneen moom la ñu jël luubal ko moom la ñu jël sàcc ko gi xam naa dinañ ñëwaat moom a tax a jóg Baye Malick gën ko yaatal léegi nag naa ko jéem a wax ci rek teggin defe naa man kenn musuma dégg may saaga waaw dinaa argumenté dinaa wax li may wax ne kat lii moom dafa war a jeex boo gisee ñii ñàkk c'est que ñii ñoo aaki moo li nga xam ne moomuñu ko ñun ñëpp ko bokk gi ñii aaki moo nag buñ leen waxee dégguñu ñu mobiliser wu ñu xamal leen ne déedéet du si seen baay du si seen maam mais suñu baay ñun ñëpp la suñu maam ñun ñëpp la. suñu ndey ñun ñëpp la ñun ñoo ko doon. alors Guy donc ñun ñëpp si jot. Guy daañu ci daañu ci ñëwaat daañu ko gën a yaatal alors c'était juste a dem ci euh, rubrique waxtaan wi lay bokk euh, euh, conseil yi ngay jox à la jeunesse ak say lutte ak yooyu yëpp daañu ko gën a yaatal mais damay ñëw ci Jeanne tout de suite rubrique mu di jeune et Jean. voilà donc Jeanne alors déjà bonsoir Jeanne nuyu nañ la. <laughs> tu vas bien ñu na de. merci yaa ma gën a sañse tu es <laughs> magnifique. alors euh, tey mhm. lan nga ñu indil. voilà euh, d'abord dama lay nuyu. Mhm. di nuyu suñu invité yi waaye itam euh, sama mag yi ma fekk si plateau bi elles sont toutes magnifiques et ils sont tous beaux aussi. Mhm. voilà tey nag comme niñ ko xamee chaque année damay ñëw ak rubrique jeunes et gens c'est-à-dire. Euh, naka la ndaw ñi di euh, wooree daaw j'étais venu avec euh, jeunes yi naka la ñuy dàkkee koor mhm. mais ren dama ñëw avec une jeunesse plus consciente ñi nga xamante ne dañuy toog bañ a xaar ay parents donc dem nañu dénk suñu micro quelque jeunes yi nga xam ne jóg nañ di yëngu ci li nga xam ne moo di entrepreneuriat ci période ramadan bi donc si élément bi disponible na au niveau de la régie ñu tegal ñoom si plateau salé yi ñi plateau sucré ñi euh, ñu ngi def ay jus uh-huh. ñi ñu ngi def euh, ay euh, soupe harira bi moom moo ci gën a fës cette année uh-huh. donc le constat qu'on a fait mooy que jeunes yi actuellement ñoom ñëpp ñoo réewu vers li nga xam ne moo di la vente de ces plateaux là le pourquoi c'est une question que tout le monde se pose dem nañ ci ba sama genre ñu ngi naan bu ñëpp di jaay ñan ñooy jënd <laughs> alors on se dit que peut-être c'est le taux de chômage xam naa si kanamee tuuti sama sama sama sama sama tonton Guy Marius Sagna ma si tontu tuuti ni que le taux de chômage peut-être mooy euh, pousser les jeunes à ce que événement bu ñëw rek ñoom ñu daal di ci euh, jéem a xool naka lañ ci mën a génnee ba tax ñuy jéem a créer un peu partout des petits travails yoo xamante ne moo leen ni permettre ñu subvenir un peu à leurs besoins en tout cas liñ ci mën a noter rek mooy jeunesse actuelle bi nen ne mhm. euh, tooguñu di xaar les parents tooguñu aussi di xaar état parce que gis nañu à chaque fois ñu dem par exemple Euh, ci structure yi nga xam ne état mettre na ko en place c'est-à-dire mm. comme DER ak yeneen mm-hmm. je vais pas euh, je vais pas citer euh, dañ ci am ay déception mm-hmm. donc voilà mm-hmm. moo tax ñoom période bu ñëw dañuy daal day profité wu moo tax ren ñu daal day dem seeti ces jeunes la nga xamante ne dañoo dugg ci la vente des aliments pour le ramadan c'est important alors di la jaajëfal bu baax baax Jeanne sa rubrique bi nga fi indi amoon na solo alors Mouhamed gis nañ ko les jeunes s'activent beaucoup par rapport à gis nga ko nii essayé nañu Euh, débrouiller ba teg seen euh, seen seen seen business ce qui est important